dal leen ak jàmm Luc Nicolaï yoon tegati na ko loxo démb la ko gendarmerie section de recherche bu Thiès fekk ca këram daat koy jàpp yóbbu ginnaaw ab mandat d'arrêt boo xamante ni cour suprême yëkkati na ko teg ko ci ndodd promoteur bi di Luc Nicolaï ca mbirum drogue ba amoon ca Lamantin Beach ci atum 2012 promoteur bi ñu ngi ko doon toppee ci mbirum yor drogue association de malfaiteurs ak tentative d'extorsion de fonds Luc Nicolaï tribunal jàppewoon ko coupable ginnaaw ba mu jëlee woon cocaïne mu di ab drogue dugaloon ko ci bureau Bertrand Tolley moom mi moom hôtel Lamantin Beach ba nekk ca Saly ci complicité yenn ci employé hôtel boobee moom Luc Nicolaï ñu condamné woon ko ci juróomi ati kaso yoo xamante ni ñaari at ya du ko tëdd ba waree waroon a fay lu toll ci un milliard kii di Bertrand Tolley ginnaaw bi cour suprême dal di càmbaraat dossier bi dal di weddi décision bi nga xamante ni cour d'appel bu ans de prison yoo xamante ni benn at ba rek la dul tëdd ba pare war a fayaat lu toll ci trois cent millions ci dommage ak intérêt borom hôtel bi di Bertrand Pouli ngir nag exécution sentence bi kii di bi dafa yëkkati woon benn mandat d'arrêt jëmale ko ci promoteur bii di Luc Nicolaï bu ñu sukkandikoo ci yenn ci indiscrétion yi lu tax justice activé waat dossier bi mooy rek li promoteur bi fisele combat bi war a dox ci diggante Modou ak Ama Baldé te ñu jàppoon ko ci weeru juin 2020 te ñu téeméeri téeméeri million ci sunu koppar lii rek daal moo waral ba brigade de recherche bu gendarmerie bu Thiès dem démb ca kër Luc Nicolaï fekk ko ci digg njabootam ca Mbour daal di koy yóbbu ci fàttali rek ci atum 2012 ci la ñaari douanier Abdou Khadre kebe ak Pape caw Thiaw daal di jot benn information anonyme loolu waral ñu defoon ab descente ca hôtel Lamantin Beach ba nekk ca foofe ca Saly ngir amal ab fuy ci bureau borom hôtel bi di Bertrand Tolly ci nekkoon ci lu toll ci 39 boulet de cocaïne yoo xamante ni ñu ngi ko nëbboon ci benn casque douanier yooyu sax ñu nga doon jéem a def ab centage bu million millions jëmale ko ci kii di borom hôtel bi di Bertrand Tulli ginnaaw bi gendarme yi jàpp ko Tulli daal di déposer ab plainte ci noonu gendarme yi daal di ubbi ab enquête boo xamante ni dina leen mëne ci ñaari employé yu hôtel boobule employé yooyu sax ñoom ñoo jëloon drogue bi dugal ko ci bureau borom hôtel bi di Bertrand Tulli te bañ leen laajee fu ko jëlee ñu ne ki leen ko jox kudul Luc Nicolaï ci noonu lañ dem jàpp ki nga xamante ni moo di promoteur bii di Luc Nicolaï ñu ngi ko jàppee woon foofee ca Passy ginnaaw ba mu jóge woon ci réewu Gambie